sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM di jéggalu ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci ndortale émission bi ndax jël nañu retard ba ñu war a waxtaanee rek tey ci émission gox bi dalal ki nga xam ni moom moo di Mamadou Gano nekkoon fii bokk moomeel bu Médina Chérif nekk membre fondateur bu Alliance pour la République bokk itam ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di cadre yu Alliance pour la République bokk itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sanc réseau des universitaires Dieng monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni ñu nagalee invitation bi. asalaamaaleykum ah, ah, rahmatullah ah, Dramé maa ngi lay nuy di nuy seen auditeurs yi. Uh-huh. di kontaan ci invitation bi. Uh-huh. di profité nag ci mois de ramadan bi. di baalu ak ñëpp. mel ni koor gi moo la xawoon jàpp. waaw di baal ak ñëpp di baal ak tamit eh, ñi ma xamante ni. laa sekkal ci ay jotaay ci ak ay waxtaan. <laughs> maa ngi profité aussi euh, ñaan jàmm fii ci Sénégal. am na solo jàmm ci suñu kër yi. Uh-huh. Euh, jàmm ci Afrique. Uh-huh. parce que ci jàmm rek lañ mun a def euh, suñu liggéey. Uh-huh. ci jàmm rek lañ mun a def n'importe quelle activité. donc euh, salaamaaleykum wa rahmatullah taala am na solo comme waxtu bi dab nañu tey euh, gis nañ la yow yaa fi nekkoon euh, maire bu Médina Chérif tey li nga xam dañuy ubbee ci loolu gis nañ yenn ci ay réalisation yi nga xam ni defoon nga ko sa biir commune élection ñëw mbir mi changé lu waral loolu ak réalisation yi nga xam ni def nga ko fay ci commune boobu waaw waaw jërëjëf xam naa ni élection locale bi passé war nañu jàngat lu bari. Mhm. parce que gis nañ ci gox yu bari du réalisation moo tax. nit ñiy fal mhm. loolu nag defa nekk loo xamante ni war na am interrogation ci acteurs politiques yi parce que suñu buggee développement nañu xool ñoo xamante ni mun nañu def liggéey bu baax andi développement. Euh, su ma jëlee sama gox bi Medina Chérif gox boo xamante ni 57 villages. maanaam bi ma ñëwee amul amuloon benn village bu am courant euh, fu mu nee nii bàyyi naa foofu 33 villages maanaam yoo xamante ni ñu ngi def nañ ko courant wala ñu ngi ci liggéey pour def ko courant. am courant amul woon ndox nit yi xamuñu woon lan mooy ndox forage waxuma saa ndox leneen donc fu mu nee nii euh, plus de 65 pour cent am nañu accès à l'eau potable grâce ak quatre forages yu ma andi. Euh, tabax naa ñaari collège d'enseignement ak coopération allemande. ak coopération française euh, côté investissement wàllu jigéen yi def naa plus de deux cent millions ci ay prêts pour jàppale leen mun a liggéey bu mujjee bi euh, grâce ak benn partenaire def nañu euh, quarante millions yoo xamante ni sans apport sans intérêt en grande partie loolu yëpp pour jàppale jigéen yi ak jeunes yi pour ñu mun a liggéey trente et de transformation offerte mais malheureusement ñun ci APR la ñu bokk bokk naa ñi commencé APR en 2008 lii am solo ci élection yi passé maanaam ci list parallèle yi mais aussi li gën a am solo aussi loo xamante ni jàngat la ci ñun ci suñu coalition surtout ñun ci suñu parti gis nañu loo xamante ni euh, euh, neexul mooy lan euh, maanaam nga gis responsable boo xamante ni bokkoo leen saa ci ay département wala région mhm. muy dem parrainer benn liste parallèle c'est le cas par exemple de Médina Chérif ñun amuñu woon benn xalaat boo xamante ni mun nañ perte élection yi malheureusement gis nañu euh, le comportement irresponsable le comportement politique irresponsable di ministre maire de Louga mooy Moustapha Diop. Moustapha Diop moo jugee Louga am. Moustapha Diop nga nga compté Louga ak Kolda. ñaata région moo nekk seen diggante yow nga bàyyi commune yooyu yëpp nga dem Medina Chérif pare ne koo xamante ni jàngul mënul liir mënul bind amul dara. nga pare ne ko uniquement dans le cadre d'une entreprise yoo xamante ni kenn xamul lan mooy fina finalité bi donc loolu pour man jaadul parce que nga xalaat ni ko xamante ni euh, yàlla def na du man maa ko def du man maa ko wax yàlla def na ñu nekk ci parmi les vingt meilleurs maires du Sénégal mais su fekkente yow ci APR nga bokk au moins am na loo xamante ni respect des principes am na loo xamante ni solidarité waxuma mu nekk solidaire ak man mais au moins na respecter les textes du parti munoo nekk ci Louga nga dem xeex koo xamante ni kooku moo la gën a liggéey ci parti bi bu mu ñëwee fekk yow nekkoo woon ci ci APR bu muy am 80 pour cent élection présidentielle bi passé yow amoo woon saa euh, euh, ay ay ay 70 pour cent donc loolu dem ko ñaawlu bu baax te avertir na parti bi avant responsable malheureusement malheureusement le parti n'a pas prendre les bonne décisions qu'il mais loolu dafa ñaaw te li ko gën a ñaaw aussi mais koo xamante ni kooku la ñu fal kooku nekkul ci APR. parce que en 2017 dafa nekkoon ci PDS mu xeex APR en 2019 nekkoon na ci benn mouvement mais en réalité battrul campagne pour wane ni moom bokk na ci ñuy fal président de la république su fekkente yow yow nga jël koo xamante ni dem na déjà pour jëli liste opposition demoon na ci liste PDS amul woon foofu place. après mu nekk ci beneen liste euh, euh, parallèle soo ko jëlee kooku nga jàppale ko pour nga xeex sa beneen moroom euh, bu parti APR loolu man gis naa ni loolu dafa ñaaw te loolu mu safaa Diop lu mu def moi je pense que c'est politiquement irresponsable loolu man mënuma xalaat man ma nekk Kolda ma dem xeex maire Louga wala maire beneen gox ci beneen région. Mhm. donc je pense que lii jàngat la boo xamante ni war nañ ko xoolaat ci parti bi. war nañ ko saytu parce que sinon lii mun na am ay ay jafe-jafe ci kanam. Mhm. jafe-jafe yi mooy su fekkente responsable yooyu euh, teg nañ seen loxo ñu croiser seen bras loolu dina tax ñu am ay problème mais nous nu sommes pas dans ce la là. Mhm. donc lii moom euh, mosuma ko woon wax feneen mais. c'est le cas aujourd'hui malheureusement il faut que ça soit maintenant rendu public parce que moom mu ngi baxu di wax waaw gagné naa Medina Chérif yow gañewoo ay yeneen commune Louga nga nga bàyyi Louga nga dem nga ne nga gañe nga Medina Chérif mhm. loolu dafa ñaaw est-ce que euh, bind nga wax nga parti bi que ni lii responsable boobu def tey rafetlu woo ko waaw mais xam nga ñun suñu parti euh, am na ay canaux de communication euh, utiliser naa canal boo xamante ni mooy suñu responsable politique départementale voire au niveau régional mhm. mooy le ministre musa Moussa Baldé mhm. teeloon naa ko avertir ma ne ko ah il faut faire attention parce que Moustapha Diop je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il a derrière mu ngi parrainé koo xamante ni bokkul ci APR mu ngi koy parrainé et donc mu ngi koy jàppale sur tous les plans sur le plan financier surtout c'est ça qui a fait perdre qui nous a fait perdre ces élections je pense que ça c'est irresponsable et donc euh, malheureusement on a constaté les faits mhm. faits yi ñu ngi nii mais man loolu du tax sama engagement ci bi tey laa gën a engagé aux côtés du président Macky Sall. parce man gis naa ni bi may engagé en 2008 nekk euh, enseignant chercheur à l'université taxaw pour sàmm benn kuréel boo xamante ni ci université bi mooy réseau des universités républicains. Mhm. bu ñu koy commencé ñu ngi woon autour d'une dizaine de personnes. ñu dem ba ñu am ay plus de cinquante universitaires yoo xamante ni ñëw nañu pour jàppale Macky ci niveau local yi entre 2008 ba 2012 balaa président di gagné bokk naa ñoo xamante ni ci cadre yu yu mag yi laa bokkoon ci euh, CCR bokk naa ñoo xamante ni ñoo liggéey pour gën a euh, rendre lisible le programme yoon yokkute te dans le cadre du Macky 2012. Mm-hmm. donc dem naa sur le terrain ma poussé cadre Kolda yi pour ñu dugg ci parti bi loolu moo taxoon ma nekkoon président comité d'initiative de la convergence des cadres républicains du département de Kolda. Donc, j'étais ce responsable-là. ma continuer combat yi de 2012 ñu gagné 2016 ñu gagné 2017 ñu ngi fàttaliku 2017 il y a eu des communes comme par exemple Kolda qui mm. avait perdu les élections législatives mais nous on avait gagné 2019 ñu am le meilleur résultat sur le plan réalisation on est cité parmi les meilleures communes du Sénégal. ok donc soo gisee ku mel noonu ngeen bokk parti su fekkente jàppale ko mu munoo waroo ko xeex surtout nga jël koo xamante ni bokkul ci parti bi bokkul ci mouvance présidentielle. koo xamante ni mu ngi am na benn tànk ci opposition nga jàppale ko donc foog naa loolu dafa ñaaw mais dans tous les cas man sama engagement ci président la république. Mhm. loolu engagement boo xamante ni dem ko jël te engagement bi mu ngi fi ba tey engagement tey la gën a laa koy gën a encouragé laa koy gën a liggéey mhm. parce que tey mun naa liggéeyal au delà de ma commune étant cadre au niveau national donc dinaa liggéeyal parti bi ci niveau national ci niveau département ci niveau commune. est-ce que euh, élection euh, locale yi nekk na benn baromètre bi nga xam ni war nañ ko mën a nattee ci sa euh, liggéey foofu wala ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum ma tànk bi nga mën a am tey au niveau de la l'APR wala sax ci jàppandal ci gouvernement bi. waaw non mais euh, élection yi passé nag mënul nekk baromètre parce que da ngay xool liggéey bi fu ñu ko tàmbale déjà wax naa la en 2008 ñu bari ñu bari ñu bari kenn mosuloon xalaat bokk ci APR dès le départ liggéey président de la République parce que temps yooyu dafa métti woon sa xaalis nga doon jël man jël naa sama à plusieurs reprises bu ma doon dem pour samp mooy euh, mooy les kuréel yi kuréel euh, politique yi sur le terrain mooy mooy comité euh, électoraux yi mhm. sur le terrain dama doon jël sama xaalis del jël sama sama moyen di dem investir de 2008 à 2012 2012 ñu def liggéey bu baax au niveau régional ba ñu gagné ñu continuer liggéey boobu ma ne ah il faut aussi que ñu débarrasser wu PDS dans nos communes bokk ci liggéey boobu def un travail important 2019 ma am le meilleur résultat du département de Kolda alors nekkuma ministre nekkuma DG nekkuma député lu tax ma am loolu parce que population yi gis nañu liggéey bi gis nañu li loo xamante ni euh, def nañ ko ci commune bi commune boo xamante ni amul woon benn lampe bu doon tàkk ci courant amul woon benn ndox bu bu sell ndox robinet donc yow nga def loolu donc loolu moo tax population yi ñu ànd ak man ñu fal président la république ñu am le meilleur score au niveau de Kolda 80 pour cent. Mm-hmm. donc loolu nag ku def loolu ku def liggéey boobu nga bokk ci cadre yi nga bokk ci ñuy fonde réseau des universités républicains je pense que euh, élection yi passé mënu nekk baromètre mhm. donc xam naa ni moom président de la république xam na suñu liggéey mhm. donc il lui revient cette tâche la mais encore une fois nu on est engagé politiquement on l'a toujours été et on le sera toujours avec nos bases donc dañuy continuer liggéey bi mhm. d'ailleurs ça maa ngi élargir sama base yi léegi moom duma taxaw ci commune bi dina élargir base bi ci département bi ci région Kolda bi mais aussi un peu à travers le Sénégal di pousser ay yeneen euh, population ay yeneen cadre di dugg ci parti bi donc loolu laa nekk di def nii. ok loolu nga nekk di def loolu daf ñu may ci alam goo xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne moo jëm ci élection législative yi léegi yéen ñi nga xam ni yéen waa Benno Bokk Yaakaar ban taxawaay ngeen ci war a mën a am ci diwaanu Kolda ci élection législative yi wala laata lool sax fan ngeen toll ci parrainage bi. waaw uh, fu mu nee nii uh, man déposé naa tey benn loo loo bu am solo uh, parrainage donc euh, déjà dépassé naa mille yi en terme de de parrainage. en tant responsable kese. en tant que te ba tey gars yi ñu ngi laaj ay fiches donc euh, suñ ma joxee fiches yi man xam naa mun naa def ay euh, des milliers et des milliers de fiches. Mhm. donc loolu loolu la ñu nekk nii mais mun naa ñëwaat saa tuuti. Mhm. ci élections locales yi. léegi du ma ko limiter sama commune mais dinaa ko généraliser au niveau national. xam nga waa ñi nekk ci opposition ñu ngi bakku mm-hmm. ñu ne ñoom ñoo gagné je pense que gagné c'est par rapport aux élections élections locale se gagnent par rapport au nombre de communes soo jëlee avant les communes euh, du département de Kër Massar les nouvelle créations. Mm-hmm. il y cinq cent quatre-vingt-dix-neuf collectivités territoriales maanaam cinq cent cinquante-sept villes et communes et quarante-deux départements mmh. maintenant soo ci yokkee département de Kër Massar ouais. avec les nouvelles communes on est à peu près un peu plus de six cents mais nga xool sur les six cents déjà ci communes yi ñu ngi ci quatre cent trente-six communes yoo xamante ni mouvance présidentielle bi gagné na ko te na communes yoo xamante ne aussi c' est des listes parallèles listes yoo xamante ni. te ñooñu yéen a ngi donc déjà xoolal loolu sur les les les les les cinq cent cinq cent cinquante sept presque vers les six cent nga jël sur les six cent collectivités six cent quelques collectivités territoriales nous sommes à quatre cent trente six communes gagnées trente huit mais ku gagné loolu. suñ ko jëloon ci ay pourcentage on est déjà à plus de quatre-vingts pour cent. mais ñoom lu ñu wax ñoom nee nañ axe Dakar Thiès ak Diourbel ñoom ñoo ko gagné kii gañ axe yooyu rek gagné nga lu bari ci électorat bu Sénégal. non mais mun na war nañu aussi fàttale aussi benn affaire Dakar on l'avait pas gagné en 2014 Dakar gagné woon Dakar en 2014. mais n'empêche élection bu 2017 élection législative ñun ñoo ko gagné woon parce que aussi élection locale xam nga defa wute ak élection nationale. Mhm. mais même su fekkente soo jëlee élection locale yi donc war nga xool ay yenn capitale régionale mais jëlal capitale régionale bu mel ni euh, Saint-Louis. capitale régionale Matam capitale régionale Tambacounda capitale régionale Kolda capitale régionale Sédhiou capitale régionale Fatick Kaffrine ak yeneen ak yeneen yooyu ay gox yu mag la donc yooyu yëpp ñun ñoo ko Donc cela signifie que de loin, ces résultats-là, la coalition Benno Bokk Yaakaar est sortie gagnante de ces élections. Mhm. Maintenant waxu waxu ay wax yoo xamante ni amul solo nga am ñaari commune wala ñetti commune ci sa nga ne yow yow yaa gagné donc man. je pense que loolu ay waxu caaxaan la. waaw ci jamono joo xam ne élection législative yi mu nekk légis euh, élection yu am solo yoo xam ne yitteel na sax président coalition benn Bokk Yaakaar ba démb sax ñu ngi koy gis ak ay responsable yu Dakar muy remobiliser waat ñi nga xam ne ñoom ñoo di responsable yeeg militants yi ndax da ngeen xam ni euh, yeewi bu ngeen ko bàyyee dina perché waat moo tax ngeen di taxawaat. non ñun ñu ngi ci continuité suñuy stratégie. <laughs> parce que gis élection yi ñu xool euh, mbokk moomu. salaamaaleykum allo. allo waaw. Rewmi yaa ngi Rewmi FM kookal la tur bi ak foo ñu woowee. maa Sow. Omar Sow ñu bàyyi la ci minute lan nga ñu mën a wax tey ci euh, gox bi di ma Medina Chérif ak monsieur le maire bi di Mamadou Gano. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di baalu ak comme le professeur Gano lu mu wax sànq di baalu ak ñëpp. Hmm. ci weer koor lañu nekk. am na solo yéen tamit maa ngi leen di baalo ak picc sari naa bari li ma fi woote. maa ngi leen baalu ak baax a baax a baax a di leen ñaanal jàmm. ak koor bu jàmm koor bu neex jërëjëf di ñaanal euh, son excellence monsieur le président picc ñun moom la ñu am. Mm-hmm. El ma Macky Sall ma président de la république. Mm-hmm. yàlla may ko wér ak wérle ak njabootam. Mm-hmm. ki ngi invité kenn yee ngi invité mooy le professeur Gano le maire sortant de Médina Chérif nit koo xam ne amul dellu ginnaaw amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la amee bu mu fi nekkee Médina Chérif ba léegi nii laa la woon ñëpp gis na Médina Chérif nu mu mel loolu moom macha allah nañ ko ñaan yàlla yàlla aar ko aar jabootam man li may fàttaliku président de la république ko monsieur le président de El Hadj Macky Sall ko professeur Mamadou Gano tey jii tey la gën a nekk sa tey la gën a nekk sa filaale ku nekk ak yow depuis 2008 mosu laa sonal si benn poste. Mhm. wax dëgg la kooku nag il est temps la gëstu ko nag nga fàttali ko. Mhm. Mhm. yaa ngi wax lu am solo mooy élection législative. je crois très bien ton excellence monsieur le président mu ngi may dégg ci rajo Rewmi FM bii euh, la liste départementale de Kolda. su bëggee gagné naa ko jox le professeur Modou Ganou mu jiite liste bi. te 2017 commune bi am toutes ñu duma leen. Mhm. Mamadou Gane jël le premier dans le département de Kolda. Mhm. kooku nag tey bu nekkee yow ba léegi ne la mos naa soxla si benn kii soo bëggee gagné liste départemental Kolda joxal liste benn bokk yaakaar fi nga jiri Mamadou Gane dirigé ko ñu gagné un la mais les élections léegi la. Mhm. de population. plus particulièrement département de Kolda. ñu ngi ñaan vraiment le président de la République jox liste bi vraiment professeur Mamadou Gane. mu gagné la li ci biir oo laa mais laa la wax. am na solo te gaano nit koo xam ne xamam kese la fekkee te bariwul wax. Mhm. Euh, di méttelu vraiment lu am ren di élection locale yi passé mhm. am na solo wax dëgg yàlla président wax na jël ay mesures. ok waaw dëkk fële laa la wax. nga eh, eh, nga eh, ngay xeex parti bi laa la xam parti bi nu mu bindee populaire nga koy xeex laa la flagrant. Mhm. mooy le ministre Moustapha Diop lu mu def ren vraiment loolu ñaaw trop. li ma gën a métti dem ba conseil des ministres. di fëli di wax président de la république gagné naa Louga je fais gagner encore na Chérif président de la république waxu ko dara vraiment man loolu man loolu dama koy nakkarlu am na solo am na solo nit ku nekk da kaa war a xam si nga war a fi nga war a sa tànk mhm. Omar Gall su bëggoon yàqal ko Louga am na mooy capacité def ko mais jullit la gor la du ko musa def moom mu ngi yem ci mu ko yemloo rek mooy Kolda mhm. université étudiants yi mooy ngi déglu populaire bi di sax ñu may déglu mhm. yéen tamit yéen waa FM vraiment maa ngi la gërëm sax jërëjëf ñaan yàlla defal leen jàmm kooku jàmm mhm. yàlla defal leen jàmm ci Sénégal defal ji Mbagnick le PDG mhm. musal jërëjëf jërëjëf am na solo kaddu yi rafet na ñu bàyyi rek euh, professeur euh, Mamadou Gano daal di continuer ñi ngoon ci perspective élection législative yi am am solo gu mu am solo ba njiitu réew mi sax mi ngi wax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay responsable ñu wàcc ci terrain bi waaw xam nga élection législative dafa nekk élection yu am solo parce que euh, élection yoo xamante ni mun na la tax nga am majorité à l'assemblée mm-hmm. xam nga malheureusement ñun euh, la plupart des opposants ils n'ont pas l'esprit républicain ñoom bu ñu gisee lu baax luñ ko wax ñoom lu ñuy xalaat rek mm-hmm. chaque jour na président bi ak régime bi nañu am lu bon rek population yi mer ñoom ñu récupérer voix yi xam nga loolu c'est pas un esprit républicain mhm. genre yooyu nag su fekkente ñoom ñoo euh, gën a bari ci assemblée nationale donc boobaa réew réew mi du dox dañ koy arrêté carrément. bëggoo leen cohabitation yéen. non du question bëgguñu loolu baaxul ci développement Sénégal parce que amuñu opposant yoo xamante ni opposant républicain opposant yoo xamante ni su ñu gisee lu baax duñ ko wax donc pour nga nekk un vrai opposant nga nekk opposant républicain euh, il faut aussi nga def yenn yi suñ defee lu baax nga ne lii baax na xoolal xoolal par exemple li def temps yi ay ay infrastructures yu am solo nga jël le pont de Foundiougne ñaata yoon ñaata yoon nit yi nañ perte foofu ay ay temps c'est des valeurs en termes de tourisme en termes d'impact économique mm-hmm. nga jël le pont de la Gambie de la traversée la Gambie mm-hmm. ñun ñoo xamante ni ñu ci Casamance su tabaski jotee wala korité mën nga fanaan foofu ñaari ñaari ñaari ñaari jours pour seulement traverser. Uh-huh. sans compter les tracasseries policières. mais loolu dañ na loolu c'est des et extrêmement importantes. Uh-huh. nga gis ni aujourd'hui au Sénégal sur les infrastructures de jeunesse nga xool en réalité le nouveau stade le stade Maître Abdoulaye Wade donc lii ay infrastructures yoo xamante ni am na solo Dakar aujourd'hui partout am na ay la VDN elle est ouverte. Mmh. maintenant il y a moins donc dafa am vision. donc ku mel noonu war nañu ko jàppale. loolu moo tax ñun en tant que responsable. Ah. dañuy fàtte élection législative yi locales yi fale. Mmh. dañuy sol suñu mbubb bi di dem remobiliser les troupes. Okay. d'ailleurs j'appelle tous les responsables. Mhm. à descendre sur les bases. ñu gën a liggéey. Mhm. parce que fuy ay gox yu bari lu tax ñu perte. Parce qu'on a eu des responsables qui sont partis en rang dispersé. C'est le cas de Dakar et dans d'autres endroits, malheureusement. donc ay responsable yu bëri am amoon nañu seen liste ñii am liste parallèle ñii am liste benn Bokk Yaakaar finalement soo xoolee suñu dajalee ñoom lu ñu am ci candidat yooyu de loin dépassé nañu opposition mais comme que élection yooyu raw gaddu la. Mhm. donc loolu moo tax. Mhm. opposition gagné. donc war nañu liggéey ñun ci élection yi. te tamit aussi je pense que président de la république soxla na. Mhm. ay cadres de haut niveau au niveau de l'assemblée nationale. c'est extrêmement important pour ñu mën a défendre liggéeyam est-ce que waaw ci ci ponk boobu est-ce que tey euh, du Gano pare na pour buñ ko tabbee ngir mu jiitee liste département bu euh, Kolda département bu Kolda pare nga pour soobu ci élection yi. non du man may fal sama bopp du man may choisir. sama bopp wala tabb la tabbee. loolu loolu président euh, c'est ça reste. sur les mains du président de la République. kon da ngeen di président. moom mooy choisir moom mooy décider mais ce qui est certain ñun pare nañu pour liggéey ñu fal ñu ñu bañ ñu fal ñun pare nañu pour liggéey en tant que candidat que qu'on soit candidat ou non candidat mais je pense que aussi am na loo xamante ni au niveau national. Mhm. le président à besoin quand même ñoo xamante ni c'est des cadres de haut niveau qui osent prendre la parole pour défendre en réalité son bilan parce que soo gisee. la plupart du temps les médias sont infestés par euh, excusez-moi du terme sont occupés en grande partie par euh, l'opposition c'est comme si en réalité les réalisations du président de la République ne sortent pas alors qu'aujourd'hui les populations à la base constatent tous les jours ces réalisations donc il est temps na de faire une meilleure communication mm donc loolu moo tax élection yi war nañu def liggéey bu baax moi j'appelle tous les responsables nga nekk ministre nga nekk DG nga nekk simple responsable ñun ñëpp nañu euh, simbi suñu mbubu yi dem ci population yi waxtaan ak ñoom di liggéey. Mhm. je prends l'exemple du département de Kolda xam nga depuis indépendance ñun ñu ngi daw Kolda c'est comme si nekkuñu woon ci biir Sénégal en termes de yenn besoins sociaux de base soo jëlee côté électricité nga jël axe de Diaobé à Kolda. même aussi mun nga dem aussi de l'autre côté à Sédhiou jusqu'à Ziguinchor da ngay gis ay gox yu bari ay gox yu am solo 2000 habitants 3000 habitants 4000 habitants des chefs-lieux de communes mais qui n'ont jamais pensé avoir l'électricité loolu président de la République moo ko réalisé heure bi nii soo demee foofu guddi par rapport ak un an avant deux ans trois ans ci passé dangay wax ni non nekkuma ci région de Kolda. <coughs> nekkuma changé la dafa changé quoi. région Kolda kon euh, dafa soppeeku ci euh, jamono Macky Sall. donc changé na bu baax côté électricité tous les grands villages ont été électrifiés donc am na andi nañu ay forages andi nañu ay routes andi nañu en réalité des moyens de production maanaam ci ay tracteurs ci ay yenn conditions yi donc je pense que loolu c'est ça qu'il faut pour développer en réalité euh, le, le pays. Mm -hmm. et c'est pas seulement Kolda foo dem ci Sénégal nga dem ci Kaolack dans les fins fonds de Kaolack du Sine du Saloum nga dem dans euh, les les îles euh, si vous voulez euh, les îles euh, euh, de l'autre côté de Saint-Louis mm-hmm. en tout cas dans les zones de Saint-Louis donc partout au Sénégal il y a quand même les résultats qui sont là et ces résultats sont palpables on ne peut pas avoir ces résultats pour le bien des populations amener le courant pour la première fois dans un village, amener l'eau, amener une piste de production, permettre aux populations de se soigner. Et là, je mets un curseur à ce niveau. xam nga man gis naa ni président de la république Macky Sall ñi bari ñi nekk ci. wetam ci wetam mënuñu ba tey comprendre en réalité sa vision. soo jëlee un pays comme le Sénégal nga jël nga ne ah je vais investir sur les routes. mais je ne vais pas me limiter seulement sur les routes mais je vais mettre le focus sur la santé mmh. et là vous prenez le cas de Sédhiou l'hôpital de Sédhiou mm-hmm. aujourd'hui va permettre de sauver combien de milliers de populations de malades qu'on aurait peut-être évacuer à Dakar dans des conditions difficiles vous prenez Kédougou qui est à plus de kilomètres d'ici des gens étaient des fois transférés à Dakar à Fann à Dantec ou ailleurs. Mhm. donc aujourd'hui les gens peuvent se soigner dans un hôpital moderne. c'est la même chose à Kaffrine et c'est la même chose à Touba à Ourossogui Matam donc un tel président qui a une telle vision qui est en train de moderniser le Sénégal ñu doon euh, critiquer mhm. TER mais actuellement ils sont les plus grands clients du TER. ñu ngi daw ci ginnaaw TER bi quoi. des fonctionnaires aujourd'hui qui laissent leur véhicule à Keur Massar à Rufisque et qui vont en réalité comme à Paris, comme ailleurs, qui vont prendre le billet, venir travailler, rentrer doucement, récupérer leur voiture au niveau de, de euh, des, des, points de garage et rentrer chez eux. C'est ça la modernité. Ouais. Et on ne peut pas avoir une capitale comme le Sénégal mhm. sans pour autant en réalité anticiper parce que gouverner c'est anticiper. su fekkente yow mënoo anticiper yow tey rek ngay gis. mënoo mhm. nekk on bon président. la différence entre Macky ak ñenn président yi. Mhm. c'est que Macky avant tout c'est un visionnaire. et c' est euh, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui parle peu. Euh, wax ni Mamadou Gano la ñuy dalal ci émission bi rek euh, responsable politique alliance pour la république ba tey monsieur le maire réel mooy réseau des élus locaux du Sénégal entité la bi nga xam ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa yeewi askan wi taxawal nañ ko ni ki sànq ginnaaw ba ñu jógee seen séminaire tey dafa mel ni kon ñoom pare nañ pour xaajale mbir yi lu jëm ci wàllum élus locaux lan moo ci sa xalaat. je pense que euh, ba tey malheureusement dañ leen fal mais compre comprendre nu lan mooy euh, décentralisation xam nga maire lan la maire nekkoo amoo benn territoire à part en maire c'est un agent de l'État maire agent de l'État la mhm. parce que état moo jël ci ay pouvoir am mu délocaliser ko au niveau des populations ñu tànn kenn ñu ne léegi euh, pouvoir yooyu yow yaa koy doxal pour le besoin des populations donc un maire c'est un commune de l'État c'est un agent de l'État donc mënoo nekk ci état nga bàyyi loo xamante ni c'est les structures qui sont dédiées mhm. par rapport à l'État yow nga créer loo xamante ni c'est comme si vous êtes une entité indépendante vous êtes dans un état est indépendant que libre ñu pour créer benn réseau ci élus locaux mhm. Sénégal euh, il y a les premières communes et ensuite à il eu euh, presque une généralisation des communes dans les grandes villes. Mmh. Depuis lors, l'association des maires du Sénégal a été créée. Association des maires du Sénégal mun nga nekk ci opposition nga diriger ko mun nga nekk ci parti au pouvoir nga diriger ko donc c'est une association qui réunit l'ensemble des collectivités territoriales en tant que communes et villes du Sénégal. Mmh. Maintenant à côté il y l'association des départements du Sénégal loolu musul am problème. il y a jamais eu de problème mais malheureusement on a devant nous des opposants qui pensent qu'ils ont des États ils n'ont même pas des communes ils ont des États et donc ils se trompent s'ils veulent véritablement travailler pour l'intérêt des communes ils doivent penser au niveau national au lieu de penser à un niveau sectaire dans une vision vraiment qui ne permet pas le développement parce que quoi qu'il en soit ils ont besoin des ressources de euh, ñu ngi xaar les fonds de concours et les fonds à Dakar la même chose ñoom Barthélemy Diaz et les autres sufekkent fekkente bi joxewul les fonds de concours les fonds de dotation mënuñu liggéey et donc il y a des structures qui ne sont pas des structures de l'état mmh. maanaam loolu daf mel ni comme syndicat l'association des maires du Sénégal bu association bu bureau bi passé mmh. man bokkoon naa ci association bi bokkoon naa ci bureau mais euh, le trésorier il était de l'opposition, du PDS, Diop. Mmh. Abdoulaye Diop. Mhm. Le secrétaire général, il était d'un autre parti, pas de l'APR. Donc, les rôles étaient dispersés. Il n'y a jamais eu de problème entre maire de l'opposition et maire au pouvoir, parce qu'on défend les intérêts des élus. Donc, Warlol Warul a un problème. Mhm. Je pense qu'ils sont, en tout cas, mal parti parce qu'ils n'ont rien compris des structures de gestion euh, de la décentralisation. nag tey euh, moom a du gaanoo moom mooy suñu gan ci émission gox bi euh, nekk responsable politique euh, ci diwaanu Kolda tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci élection yi dañ ciy delluwaat parce que xam naa ni fa la ñuy jeexalee li nga xam ne moo jëm ci émission bi waxtu bi presque dab nañu mais est-ce que tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci tànneef bi njiitu réew mi wala président coalition benn Bokk Yaakaar bi ni mu defee woon élection locale yi bu ko defaatee est du defaat erreur ci élection législative yi ñu jëm non xam nga élection yi c'est différent des élections locales. daa mel ni yitteel na leen de. waaw loolu yoon la parce que euh, lu ñu am ci am objectif ñu am la majorité une majorité écrasante. Mhm. pour permettre Macky Sall mu continuer ses programmes au bénéfice des populations. parce que lii am solo mooy population yi. li am solo mooy sénégalais yi ñu nekk fii ak ñu nekk diaspora loolu moo tax ñun ñu ngi liggéey pour président mun a am majorité écrasante donc loolu nag laaj nañu liggéey te ñu ngi sant yàlla bu baax parce que gis nañu euh, ci ay fii ci dakaar ci ay yenn maire ji jóge ci opposition ñëw ci parti au pouvoir parce que xam nañu fii mooy avenir bi donc loolu nag euh, war nañu def liggéey bu baax liggéey bi mooy nañu tànn ñoo xamante ni mun nañu def liggéey bi parce que nekk député nekkul nii kese nga dem assemblée nationale voilà su amee ay projet de loi ngay voter wala nga bañ a non <laughs> parce que aussi war nga def liggéey à la base un député doit être en réalité un acteur à la base ñëw nemme population yi nga xam lan mooy seen jafe-jafe dem défendre ko à l'Assemblée nationale <laughs> donc loolu moo tax nag ah am nañu yaakaar le président de la République va faire un très bon département par département et aussi choisir la liste nationale pour ñu am ay responsables yoo xamante ni euh, mën nañu dem assemblée nationale def liggéey bu baax. Mm-hmm. parce que le travail parlementaire c'est pas seulement le travail de voter une loi. Mm-hmm. mais c'est le contrôle de du pouvoir. Mm-hmm. donc le contre-pouvoir donc contrôler l'action du gouvernement. et donc pour cela il faut nga am benn niveau. je pense que moi je suis convaincu un député war na am yenn niveau yi. am yenn base politique yi. pour mun a dem ci assemblée nationale. te loolu nag ñu ngi koy bàyyi président de la république ñu ngi koy déglu te am nañu yaakaar ni ah en tout cas war na xoolaat yenn gox yi mais ce qui est important c' que responsable yi ñun duñu xaar ba élection yi jot pour liggéey liggéey bi dañ ko commencé depuis longtemps lendemain des élections la ñu tàmbali liggéey bi man en tout cas maa ngi continuer di massifier à la base. au niveau de ma commune au niveau du département et au niveau national mm -hmm. pour permettre au président de la République gagner haut la main okay. donc loolu mhm. dafa am solo te eh, gis nañu les réalisations comme je l'ai dit si je prends le plan de l'agriculture chaque année mu ngi yokk budget en réalité de, destiné aux intrants aux semences ren ñu ngi à soixante-dix milliards mhm. daaw ñu ngi woon à soixante milliards donc chaque année mu ngi koy yokk mhm. alors que le budget ba mu ñëwee ay en 2012 le budget atteignait rarement difficilement les 30 40 milliards aujourd'hui il est à 70 milliards donc mu ngi liggéey pour permettre au Sénégal d'avoir une bonne production alimentaire te gis nañu actuellement avec la crise wax na ko mhm. Mhm. la crise en Ukraine donc ça va ça risque d'impacter sur les produits euh, de base sur mhm. les denrées de base donc loolu nag mënuñu ko liggéey tey tey tey pour ñu am résultat tey tey tey loolu ça nécessite un investissement. investissement bu muy def depuis 2012 commencé nañu gis résultat yi soo jëlee ci plan sur le plan rizicole mooy production ceeb euh, Sénégal dafa soxla bi blanc par an c'est-à-dire yow li ngay lekk man ak keneen ak keneen lu ñuy lekk ci par par ci at yi ci at bi euh, million ak euh, genn walla tonne un million cinq cent mille tonnes. loolu nag. il faut ñu investir loolu moo tax président l'a compris loolu soo ko jëlee ci xaalis c'est autour de trois cent millions de dollars maanaam la ñuy jël ci importation loo xamante ni day jóge ci sa poche poche commerçant bi poche keneen ak keneen loolu la ñuy dem jënd ceeb à l'extérieur mm-hmm. donc investissement massif sur le plan agricole notamment sur le plan rizicole day permettre bu ñu demee ba ñu am autosuffisance alimentaire en riz. 300 mm-hmm. millions yooyu de dollars nekkaat fii ci producteurs yi nekkaat fii ci transformateurs yi nekkaat fii ci euh, ci commerçant yi mhm. ak ci yeneen distributeur donc loolu nekk na maan bu am solo maanaam peut-être autour de de cent quatre-vingts milliards de francs CFA mhm. donc investissement bi dafa am solo donc ñun nag dañuy encourager président bi koo xamante ni mu ngi def liggéey bu am solo. Moussa ci ci ci côté boobu. Mhm. ñu ngi euh, féliciter le ministre Moussa Baldé vraiment qui a compris la vision du président Macky ñu ngi koy encourager. Mhm. ci ci liggéey boobu. Mhm. mais gis nañu côté yëpp côté enseignement supérieur président def na ay réalisation yu am solo. fu mu nee nii soo demee ci université Cheikh Anta Diop de Dakar bientôt ay réalisation ay pavillon léegi mu pare donc on va passer de six mille lii au niveau national à plus de quarante mille loolu nag dafa am solo sans compter les autres infrastructures sans compter le financement en vue de la recherche mhm. yooyu nag yaakaar naa ni dafa am solo war nañu am fii ci euh, Sénégal ñu am ay financements pour permettre ñun universitaires yi ñu gën a gëstu ci recherche bi ci recherche bi pour am ay produits am ay résultats ci fànn bu ne mhm. permettre au Sénégal avancer parce que dëkk yu mag yi mhm. soo gisee ay États-Unis ak ay yeneen mhm. Canada wala ay France ñu avancer parce que quelque part dañuy jàppale recherche bi euh, en contrepartie universitaires yi taxaw ci euh, thème bu ne ci côté bu ne ci domaine bu ne pour am ay résultats yu am solo loolu moo tax. Mhm. dañuy am ay planification bu baax planification de dix ans vingt ans trente ans ñu xam fu ñuy dem. donc loolu nag président mu ngi liggéey. amul benn domaine boo xamante ni bàyyi na ko. te kontaan naa bu baax. Mhm. te bu mu euh, lancé travaux yi pour l' aéroport de Kolda. je pense que aéroport boobu mu toll xanaa mi ngi avancé. oui oui il y a eu le lancement des travaux euh, euh, tout récemment. Mhm. Euh, mais yaakaar naa ni dans un premier temps. mun na nekk aéroport régional mais je pense que ce qui est important Kolda war na décoller. pour mu Kolda mu décoller il faut que l' aéroport de Kolda soit un aéroport international. Okay. c' est la seule région au Sénégal boo xamante ni am na trois frontières am na trois pays frontaliers. Mhm. maanaam soo demee Kolda. Guinée am nañu frontière ak Gambie. Mhm. am na frontière ak Guinée Conakry. Mhm. am na frontière ak Guinée Bissau. Bissau donc bu ñu développer plateforme aéroportuaire internationale dina permettre. en réalité développer en même temps le tourisme. Mhm. dina permettre d'avoir des répercussions sur l'ensemble des domaines mhm. économiques. am na solo loolu nag dafa am solo. am solo monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax du Gana ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu bi moom moo ñu xocc ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo. waaw jërëjëf euh, maa ngi jégalu euh, seen auditeurs yi di leen nuy bu baax. di kontaan ci invitation bi. Mhm. te di encourager son excellence le président Macky Sall. Euh, je que le Sénégal. à un président qu'il fallait avoir depuis le début des indépendances. Mmh. Un tel président mérite d'être soutenu. Aujourd'hui, op l'opposition ne doit pas en réalité réussir euh, pour ces élections à venir. loolu moo tax nous on va travailler à la base pour am un bon résultat permettre au président de la République de continuer ses pour le bonheur du Sénégal et des Sénégalais. di ko sant bu baax a baax a moom moom a du Gano nekk responsable politique euh, département bu Kolda nekk itam membre ci cadre ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di Alliance pour la République APR bokk itam ci membre forme fondateur yu réseau universitaire euh, républicain mu nekkoon sunu gan ñi ki tey di jégaluwaat ba tey rek ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci waxtu bi gërëm Léopold Mendy